bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman kasira ayyuha almustamicuuna alkiram fi kulli makaan nuxayikum jamican bi taxiyatil islaamiya qaila lakum assalaamu aleykum wa mbokk julli di gannaaw bu ñu leen nuyoo mu ngi ñëw ak yéen tey ci suñu darsu bi ci maanaam jullik àjjuma farata la comme yeneen julli yi di nekk farata mooy farata boo xam ne nag xeet yi mbokk njëkk julli dégg nga ba mu ne wa salaatul jumuati jullig juuma fardun faratala alal axyaani ci jëmm yi kenn ku si ne mukallaf bu nekk gor bu nekk góor farata nañ ci yow julli juuma kenn mënu ko defal kenn kenn ku si ne yaa koy defal sa bopp bokk na fardu kifaaya kon farat la boo xam ne si jëmm yi la dal ñëpp la war képp kuy jullit nekk gor nekk góor dégg nga nekk mukallaf yoola juma war wala xaa ñeexal na juma jooju nag ñuy jàng suruutu wujóobin ay sart yoo xam mooy tax juma war am na sart yoo xam bu dalee ci jëmm ji jumaa ji jàpp na ko wa arkaanin ak ponk wa aadaabun ak teggin ponk mooy ay poto poto yoo xam ne ci misaal ñooy yenu néeg bi ñooy yenu jumaa ji arkaan ak ponk wa axzaarun ak ngant yoo xam ne mubiihu dafay daganal ak taxallufa wuutee xanaa su jumaa ja am na ngant yoo xam ne yëpp dalee ci personne bi am na droit dem jumaa mooy wa axsaarun ak ngant yoo xam ne tubbihu day daganal ataxlufa wuutee anhaa su juma fa amma shuruutu wujubiha sartal waru juma sart yi nga xam ne bu dajee ci personne bi juma daf koy war bu demut dafay am bàkkaar kooku de fa sabaatun juróom-ñaar la bu ci njëkk al islaam mooy nga nekk jullit islaam kon nga dégg ci ne chrétien bi siif bi yéeféer bi jumaa daanu xut ci kawam wal buluuxu ak nekk mukallaf mooy nga nekk mukallaf wala àqulu ànd ak xel nag ndax mukallaf bi nga koy wax dafa fekk boroom ànd ak xel mooy wala àqulu ak xel na nga nekk mukallaf sarte ya dañ ko jàng ci bu sawee yàlla sartay mukallaf bokkoon na ci na gis baaxu góor nga xam tey ci misaal boo amee soxna bu yàlla tudd ci soxna sa doom mën ngeen a am doom ak yeneen yi ci xaju wa su kóori ak góore kon jigéen génn jigéen juuma warut ko wal xurri yetu ak gore kon jaam ba jaam da am nag kon juuma warut ndax koo xare bu la neex nga yóbbu ko fii ba tiwaawoon dem jaay ko jël xaalis daf sepporte doo ci am bàkkaar loolu moo doon jaam wala jël ko yóbbu ko ci yeneen pays yu sori jaay ko te kenn dul si beneen bàkkaar loolu mooy jaam wala xaamatu ak sax ci dëkk bu jumaa ji nekk da nga fay nekk waaye keroog boo tàggoo xëy na maa ngi tukki génn nga dëkk bi su boobaa jumaa ji wàcc na la wasixatu ak wér ku wér juma war na kon fekk wér nekkut ci yow ak wér di moo nekk ci yow feebar wala nga feebarle su booba juma daf lay wàcc feer boo xam ne dafa xon dafa diis wala nga feebarle feebarle bu diis kooku su boobaa juma dafay wàcc personne bi wa amma arkaanuha ponk yi ponki jumaa <clears throat> fa xamsatun moom itam juróom la al awala bu njëkk ba nag al masjidu mooy jàkk loqa dañ ko tabax tuddee ko jumaa àll si jàkk ji nga xam ne yëkkoonu day nekk jaamian ñu tuddee ko jumaa ñu tabax ko benn tabax ne lii mooy jumaa ji waaye dëkk bi amul benn tabax ñu ñëw rek dajal ci dégg nga dingare bi wala ci terrain bi ne dañuy julli jumaa kon du wér il faut tabax nekk fa tabax boo xam ne bu ñëwee ci la ñu mën a jullee julli jumaa nga xam ne tey bu doon taw ña nekk ci biir duñ génn di daw lu nayu tàng-tàng ñu ci biir duñ daw loolu mooy loolu mooy wéral jumaa asaani ñaareel ba ca euh, ponk ya jamaaxatun mooy mbooloo laysa lahum ñeeloon mbooloo ma xadd xaddun limite mbooloo nu mu mënta toll rek amul limite ci bëriwaay nu mu tollu toll amul limite xam amaa kay limite li ñu limité kay mooy tuuti xaay ba waaye bëriwaay moom ba day ba ci milliard sax baax na nu mu gën a bëree mu gën a baax moo tax mu ne wa laysa lahum ñeeloon mbooloo ma xaddun limite inda malikin fa imaamu malik moom loolu la wax te ñun ci ngir maal lañ nekk mooy imaamul madina gannaaw bu yonente passé ak sahaaba yi moo nekkoon madina ci jàkkaay yonente bi sallallahu taala alayhi wa dafa jàngale ku ragal yàlla ku bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam laa bu da mënul ñàkk ante ba nekk jamaatan da mbooloo moo xam ne te taqara mën naa saxee biim ca mbooloo ma xar dëkk na nekk mbooloo moo xam ne tey ñoom mën nañu def seen dëkk bopp waaw ca bu njëkk dañ xam dañ ko xamam déet li wax caakaar caakaar yëkkati caakaar teg ko mooy néeg bi fekkee dëkk ba tey mën nañ yëkkati néeg bi teg ko ci kaw miir bi defar ko ba mu baax tey ku ñëwoon tey engagé leen attaqué leen pour xeex dañ mën a xeex ak yow ba kere nga leen da gañee ñooñu mën nañu am jumaa waaye fekkee nag dafa nekk dëkk boo xam ne ñaari kër la rekk dégg nga këru waajur wi ak këru doom ñoo fi nekk ñooñu mën nañu samp jumaa mu anta koona ja jamaatan te taqaraa dana saxee bihim ca mbooloo ma xariyatun dëkk dëkk boo xam ne mën na ca saxee war rajaxa lënkal na baxdu a imatina lenn ci suñu suñu kilifa yi daal ñoom daal dañu wax ne annahu annaha na ko moom juma te joosum ngay daggane bis na yaxashara fukk ak ñaar muy douze rajulan ci góor baaqi na yoo xam ne dañuy des li salaamiha ba sëlmalu imaam nañ nekk douze personnes fukki góor ak ñaar keneen ku ñëw baax na waaye fukki góor ak ñaar yoo xam dañuy nekk gor dañay nekk góor dañay nekk mukallaf te imaam bokkut imaam bokk mu nekk fukk ñett dañ fay nekk nag ba imaam ne asalaamualeykum kenn ci ñoom bu toj lay génn rek jumaa ji yàqu na asaali ci ñetteel ba alxutbatu mooy xutba al uulaa bu njëkk ba xutba bu njëkk ba it ponk yi la bokk ndax jumaa mënta ñàkk xutba li ngay waaree nit ñi te xutba gën a dëppoo ak jamono ndax xutba la ci gën mooy dangaa yéene ñi xam leen lu xew ban situation ci leen toll lan mooy actualité jamono bi nga waraatu ci loolu waxiya moom rukkunun ponk la ala saxiix ci wax ju gën a wér ñu ne xutba gi it ponk la ci ponk jumaa yi wa kazalika na ko noonu alxutbatu xutba asaniyatu bu ñaareel alal mashhur ci wax ju gën a siw wax ju gën a siw mu ne xutbay ñaareel de ponk la ci jumaa waaye nag xayru mashhur dafay wax ne du ponk xutba gi ndax dañ koy def ci langue bi bu ñu neex wala ca làngu arabe lay nekk dañ ci ñëw incha allah wala bu da mënul ñàkk nag ante kon mu nekk moom xutba gi baadul zawal gannaaw bu mi di passé gannaaw bu mi di passé dégg nga éner pile mën nga fay julli jumaa mu wér ñun kay ñoo limité ne léegi deux heures et quart julli wala deux heures nangam éner mën ngaa julli jumaa mu wér deux mën ngaa julli jumaa mu wér trois heures mën ngaa julli jumaa mu mën ngaa julli jumaa mu wér yooyu yëpp boo fi julli jumaa foofu julli jumaa rek jumaa ja wér na mën ngaa julli jumaa sax seulement rek ñu li xam tàkkusaan mu wér waaw ci ngir maale laay wax nag an takkoona baxda zawal <coughs> gannaaw boo xamee ne jant bi léegi xaw naa jeng tuuti suñ digg bopp yi xaw naa jeng suñ digg bopp maanaam xaw naa pas suñ digg bopp yi foofu la waxtu yu commencé wa qabla salaati njëkk ñuy julli la ñuy def xutba gi bu njëkk dañ ko daan def comme korité dañuy xaar ba julli ba sëlmal sallallahu alayhi wa sallam commencé do xutba benn bis am njëgg moo xam ne njëgg mooy ay commerçant yoo xam ne ñu ngi jëlee koxoon Cham indihaale marchandise mu bari ñu nga xam ne commerçant yi nekkoon ci jumaa ji fekk sallallahu alayhi wa mu ngi xutba ñoom ñëpp ñu daw dem ca marchandise pour gaaw jënd alquran ñoo di leen yedd ba isaara aw tijaaratan aw lahwan infadu ilayha wa tarakuka qaima isaara aw tijaaratan aw lawoon saa soo xamee ne gis nañ marchandise mu ñëw walla am pox fekk yaa ngi xutba ñu dem bàyyi la kon nag xutba gi léegi danga koy def njëkk ñuy julli boobu lañ ko sensé di xam ne léegi da xaar julli gi hmm. moo tax mu ne wa qabla salaati njëkk ñuy julli la ñuy xutba walaysa fil xutbati nekkul ci xutba gi moom it xaddun limite xanda maalikan fa maalik imaam maal neenu xutba gi nu la neex mu toll na am waaraate rek na am aaya alquran na ci xaddis ñëw dégg nga xaddis bu wér nga wax ci aaya alquran wax ci wax waxi borom xam-xam yi bu nekk ñetti minutes baax na bu nekkee cinq minutes baax na waaw waaye bu guddee bu ëpp nag baaxut ndax dangay suur dangay bàyyi xale xel ñi nekk ci biti naaj bi tàng kon jamono da nga koy dégg bu fekkee te yàlla jànge taw nit ñaa si biti xutba gi na gàtt ràkk yi na gàtt lépp na gàtt nga libéré nit ñi waaw moo tax mu ne xinda aydan fa imaam malik wala budda mënul ñàkk antakoona ba nekk moom xutba ga mimmaa ci la nga xam ne tu sammiihi dana ko tuddee alxarabu arab xutbatan mu nekk xutba na nekk loo xam ne arab daf ko tuddee xutba waaye bu mu nekk discours xam nga discours ak xutba bokkuñ discours dégg nga bu la neex sax nga def ko doo indi benn aya alquran doo indi benn xadis te dafaa nekk discours bu neex xutba nag mënul ñàkk aaya xutba mënul ñàkk xadiis te it xutba gi it bu nekk rek ay woy nga woy ko lépp da ko woy loolu itam da nga koy tere nga nekk daa xutba ngoo xam dafay xànd ak xëy ba wegeel nit ñu xaw a tiit bàyyi seen bopp seen bàyyi seen bopp bàyyi seen bopp xel ba vondré bi da del si xaar wa yustaabu sopp nañ attaxaaratul laab fii maag si ñaari xutba yi booy xutba yi te si ñaari xutba yi na nga ànd ak njàpp na nga sangu-sangul jumaa na nga ànd ak njàpp nag soog a ñëw toog njàpp loolu nga jàpp nag ci biir xutba bu su fekkee dafa toj du continuer sa xutba ba dee ba xutba gi jeex maam moom yëpp patiente fu tuuti may la nga dem jàppewaat ñëw jiite leen doon mën a nekk hmm. wa fil wujubil qiyaam ndax dafa war nga taxaw yow muy xutba lawuma ñaar ñaari xutba yëpp dafa war nga taxaw ci wala déedéet na nga toog tarat dudun am nañ ci wuutee déngi déngi ndax ñaari xutba yëpp da ngay taxaw dégg nga looy as diir bi ngay def toog tuuti mooy digle na mooy mooy mooy tegtale mooy wane na xutba gi njax nga jeex na boo jogaati yaa ci xutba ñaareel dara diggante boobu wala déedéet bu la neex mën ngaa taxaw benn bi toog benn bi loolu ci la borom xam-xam yi am weerante arraabi xon ñeenteel ba ci ponk ya al imaamu mooy imaam jumaa mënta ñàkk imaam kii mooy suñu imaam imaam boo xam ne nag nekkul imaam boo xam dafay dafay dëkk dëkklu dëkk bi nekk fi tey bu jëlee jumaa yoo dem ñibbi dëkkam boo léegi mu ñëwaat déedéet na dëkk ci place ba waman ak képp koo xam ne ah, ak képp koo xam ne imaam boo xam ne dégg nga dafay sax ci dëkk ba waman yëkkoon ak képp koo xam dafa nekk fi sifati yi waman fii sifati ak képp koo xam dafa nekk ci melokaanu imaam mooy naib koo xam ne bi imaam fardu tey moom moo koy xuutu waaye yëkkoonu ba tey mu nekk moom imaam ba mi man bokk si ña nga xam ne tëj bu war na juma tëj bu war na àllee ci moom aljumaatu juma na nekk it koo xam ne juma daf koy war ixtiraasan mu ngi laa maytu ndekuloo mi na sobi ci xale xam nga xale mën naa nekk imaam waa imaamu naafale ci weeru koor yooyu mu mbokk alquran jiite nit ñi loolu dara nekkut waaye amaa jumaa nag moom xale mënu koo jiite jullik farata yépp xale mënu koo juma jiite ak jumaa it xale mënu koo jiite wal musaafir ak kuy tukki tukkikat mënta jiite waaw gannaaw musaafir la ci dëkk bi bu mu jiite wa xayri ma ak lu bokk na ñoom ñaar lu mel ni ki jigéen ak lu mel ni ki jaam ba jaam daa ñoom ñëpp kenn mënu see jiite jumaa ñu man si ñi nga xam ne lemte te jib warul juma alayhim su ñoom ñii juma warul leen ku jumaa warul rekk mënoo nekk imaamu juma il faut que rek juma daf lay war nga mën a nekk dégg nga imaamu juma kon musaafir kon du jàgg na borom xam-xam te dañuy immigré suñ juma ji rek benn borom xam-xam jiyee ko si dëkk ba ñu ne ko demal jiite du wér xalifa lañ mayee xalifa koo xam ne xalifa la waaw su boobaa léegi wala mu nekk amiral mu'minin jiitu jullit ñëpp su boobaa bu ñëwee mën naa jiite waaye amaa nag on portugal rek borom xam-xam ni ñëw rek ne dafay jiite loolu ñu ñoo ko ñoo ko ñoo ko def ak suñu maslaa waaye du loolu wérulul jumaa wa yushtaratu sartaan nañ an yëkkoona ba nekkat almusalli aji aji julli ji bil jamaat si mbooloo mi huwa moom alxaatibu moo da aji xutba ki nga xam ne mooy jiite mbooloo mi kooku mooy xutba lu ñuy bañ ba tey kii xutba kii jiite yow mi nga xam ne yaa jiite nit ñi tey yaay def ca préparation ñëw xutba ba xutba gi jeex nga taxaw ci minbar bi jiite nit ñi ñu ne foofu mu ne illaa loxo xasrin dara ngànt loo xam ne yam naxoo dafa koy tere min saale ko cura dafa am ngànt bi maanaa dafa xutba ba xutba gi jeex mu war a jiite nit ñi feebar ñëwal ko feer boo xam ne fu ne wóor nañu mën a tura jiite nag kenn ci maamam yi dem xóotu ko jiite loolu dara nekkut ci moo tax mu ne illaa loxo xasrin dara ngànt loo xam ne yam naxoo dafa koy tere min saale ko si jiite wala mu xutba xutba gi jeex mu commencé de miir mënatu taxaw muy xutba pare léegi commencé de wëccu dafa am ci ay nit suñu waxee lu bari sax commencé da wëccu kon te boobaa léegi am na ngànt wala muy bori ñu xam ngeen bori bari mooy koo xam ne bakkan bi daay génnee dara te kenn dóorul ko daf daan am euh, léegi muy génnee deret jooju ñu patientu ab diir mu continuer rek yàgg su boobaa nag kenn ñëw ci maamoom yi kon ci naay bi euh, nu naay bi ñëw xuutu ko ci loolu jiitu nit ñi moo tax mu ne ilaa li xosri yem na hoo min zalika min maradin dafa feebar moo ko tere loolu aw junnooni wala dafay daanu rab xam na ñoq dayee daanu rab rab moo leen da daane maanaam aw naxwi zalika wala yu ni doo yooyu yooyu yëpp bokk na ci ngànt yu koy teree julli waaye jëb dana war intisaaruhu xaarandeku ko lil xosri ngir dañu ngànt gi alxarib bu jege xalal asax su wax ju gën wér mooy nañ ko ba ngànt li dëñ su fekkee ngànt li mën naa dëñ ci dir bu gàtt ñu xaarande ko loolu ba dañee mu ñoo jiite nit ñi su fekkee dañu nag keneen ñoo taxaw ci mbooloo mi jiite nit ñi bi ma mujj alxaamisu juróomeel ba mawdiul istitaani mooy place boo xam ne des na ca dëkk kon nag falaa tuqaamu des taxawal aljumaatu juma fi mawdihan ci place boo xam ne dégg nga noonu waaw falaa tuqaamu jumaatu kenn taxawal juma laa fi mawdaxen ndara ci place boo xam ne yus des na fa dëkk juma daal foo koy taxal foo koy tabaxee mu nekk fa mooy place boo xam ne disponible na nit ñi nekk fa dëkkee fa jamono sedd bu ñëwee nit ñi mën nañ faa nekk jamono tàngaay bu ñëwee jàppal na ci nit ñi ñu mën faa nekk foofu la ñuy defal jumaa waa jumaa joo xamee tey bu sedd ñëw ñëpp daw génn dëkk ba wala génn gox boobu foofu kenn dafa tabax jumaa bu tàngaay ñëwee itam ñëpp daw su taw ñëwee itam ñëpp daw ndax foofu dafay nekk loo xam dafay indone ba kenn dafa mën a dugg foofu kenn dafa tabax jumaa waaw waaw ilaa fi mawdaxan ilaa fi mawdaan dara ci palaas boo xam ne yi tawtanu def na fa ko dëkk fii ci moom waxoo moom nag moom jo moo waje nekk ne que dana nekk maxallan mu nekk palaas lil iqaamati ngir sax yumkin boo xam ne jàppandi na almaswaa sax fii ci moom moom laa ko léegi na nekk palaas boo xam ne jàppandi na ak sax nu ñu dëkkee fa dégg yëm kon da jàpp ni almasiwa sax fii ci moom bala dan dëkk kaaran nekk aw xaryatan wala dëkk bu ndaw moo xam dëkk bu mag la muy ville dëkk ville wala dëkk bu ndaw muy dëkk village yi dana disponible pour <coughs> ñu nekk ci place yooyu kon place boo mën nañ faa def jumaa wa ama aadaabul jumaati daa teggi ni jumaa tegg ni nga xam ne dañ bëgg ku def jumaa nga parawaar loolu jëm koy def fa samaaneetun huit la mooy juróom-ñett la al awalu bu njëkk ba ci teggee ni alxuslu mooy sangu laxaa ngir jumaa wow moom sunnatun sun la bay dem jumaa na nga sangu sangu ma la ca gën bu mu ànd ak saabu ndere borom tilim ba ëpp <coughs> kon na bamb yaram ba yaram bi set mu soog a sangu comme nañuy sangoo farata noonu ngay sangoo jumaa kooku sunna la xendal jumhur yi xendal jumhur fa mbooloom borom xam-xam yi d'accord ne ne sunna la wa min shurutihi bokk na ci sartaay sangu yi an yëkkoon mu nekk mutasilan mu aju jokkoo dégg nga bi rawaax yi ci dem nga mooy gont dañ bëgg a saa soo sangoo rek nanga nga dem waaye bul fa sangu toog daxaar xañ wala nga toog fa commencé di xuwaare wala nga sang ba pare toog fa dañ xaar ab ataaya wala ab soo mooy naan ak yooyu moom gënut fa inixtasala bu sangoo <coughs> wastaxala mu daal soxloo bil xadaay sa añ a namin wala nelaw ahad na baam alxuus la sangu ga xalal mashhur ci lu gën siw bu fekkee dafa sangu ba pare dem xañ wala mu teel a sangu tëdd nelaw ba yeexu dafay baamuwaat cangaay ba lu gën rek nelawal li ngay nelaw bañ ne léegi jumaa yi dem jumaa yi def na trente minutes nga jox sangu soog a dem waaw fekk añ mi na mënta pare nga xaarande ko lool nga xaarande ko rek dem julli jumaa waaw asaane ñaareel ba assiwaaku mooy bomb sa gémmañ ndax mbooloo mu fay daje ak malaayika yi fa nekk ci jumaa ja nanga nga bomb sa gémmañ ba nga xam ne mbooloo mu nekk ci jumaa ja buñ fa loroo ci sa xetu gémmañ ñaareel bi it malaayika yi ngay saafaante buñ loroo ci yow sa xetu gémmañ bombal sa gémmañ daal ba kenn bu la kenn rëbb asaali ci ñetteel ba xalqu chanri mooy wat karaw sa karaw nanga ko wat sa karaw bopp nga wàññi ko nga sa karaw yu sikki nga wàññi ko defar ko ba mu jag moom daal tajamul la refer referlu ba nga xam ne saa tee moo ñëw si jumaa ji ku la gis xam ne yoon mi àjjuma ji fonk nga ko araabixa ñeente ba nag taqliimu taqliimul adrafiri mooy dagg ay we nga dagg sa we ba mu jekk balaa nga dem jumaa loolu itam ci teggini jumaa ci la bokk alxaamisu juróom ma ba te jann bu maa mooy moytandeku lépp loo xam ne yetta walladu dana juddoo minul ci moom ar raihatu xet alkrihatu bu sibu mooy xet goo xam lekk loo xam dafa am xet gu bon boo xam ne tey boo demee ca mbooloo ma ñu lay cëmu lu mel ni lekk soble lu mel ni ki yey xëccax am ñu koy def lu mel ni que nitatu am na ñu koy def lu mel ni tux galax ndekk du ko dindi ba ba mu sëggee ba mënta daal demul jumaa asaade si juróom benn ba ci teggi ni atajamulu mooy rafet rafetlu bi siyaabe ci yére alxasanati bu rafet jumaa nag bi ne rafet rafetlu si jumaa mooy nga sol yére bu weex bokk amee yére bu weex tàll dégg moom ngay sol dem jumaa bu fekkee sa xeet la tabaski korite moom yëre bu bees lañ ca bëgg yëre bi na bees rek asaabion juróom-ñaareel ba mooy septième ba ata tayibu mooy laal parfum laxaa ngir jumaa booy dem jumaa na nga laal parfum ndax xet gi neex koo dajandey saan masha allah mu naw la asaaminu juróom-ñetteel ba almashu mooy dox laxaa ngir juma doone rukkoob walis ngay war nga bañ a war nanga dox doxee tànk dem arabu ne almashu mooy doxee tànk dem nga bañ a war oto doonte xam nga ko ndax xanaa mu sori lool jumaa ji sori lool kon wutal oto waaye fekkee dafa yem yem mbaay rek jege sax la gën a def kon doxeel tànk dem ndax yónnente mu mooy wax ne maneex tamba maneex man ixtabara xadamaahu fi sabilillaahi xaramallaahu jismu ala naar képp koo xam ne tànkam dafa poussière ci yoonu yàlla yàlla xaraamal sa jëmm safara moo tax mun ilaalil xosrin dara ngànt loo xam ne yem na xom koy tere min ko ci loolu dara ngànt loo xam ne daf koy tere war kon daf koy tere dox léegi mag la mënatul dox yenn dox yi wala dafa amee tànk yu metti wérul wérul googu kooku su boobaa léegi mën naa mën naa war waaw ñu may signaler ne ma heure bi jot na lu ci jub ci yàlla lu ci dëng ci ñun ñi la waaw wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa wa barakaatuhu